yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadir irham jamii al waraa kon pour def euh, présentation bi euh, dañuy euh, xamle ne association Hikma ñu ngi ko toggu ci atu 2008 pratiquement la nekkoon en gestation daal di ciy dox ba yàlla dogal mu am kayitam récépissé ci ministère de l'intérieur euh, année wu 2009 association bi nag euh, mi ngi amoon mission mooy xeex ñàkk ci xeex ñàkk boobu nag dañu ne woon nañ ko fajtal mais nañ ko jaare ci pratique yi nga xam ne lislaam daf ko daganal lu mel ni waqf lu mel ni zakat lu mel ni finance islamique lu mel ni def benn fonds de solidarité daal maanaam boo xam ne lu ya lu lu dagan lay doon loo xam dañ koy mën a dimbalee nit ñi ci biir loolu ñu xalaat ne tamit formation ak éducation lu si am solo la ñu daal di koy dugal ci axe yi dugal ci lu mel ni wàllu héritage miraas yi ak ni mu bari woon ay problème dugal ci lu mel ni médiation sociale dugal ci lu mel ni tamit ay service mbooleem li nga xam ne dañ ko ci doon def tamit lépp lu mu généré rek dañ koy dugal ci fonds de solidarité bi pour dimbalee ko nit ñi parce que loolu moo nekkoon sunu vocation première mooy lutte contre la pauvreté si biir loolu amoon nañ ay volets comme lu mel ni waqf waqf islamique gisoon nañ ne ñu bëri daal ci biir finance islamique xamuñu ko noonu maîtriser wuñ ko association bi daal di koy jël def ko axe prioritaire gis ne suñ ko concrétiser dina nekk levier bu am solo boo xam ne dana gën a xatal diggante ñi ñàkk ñi ak ñi nga xam ne dañoo am si biir wax fu tamit ñu ne nañu développer équilibre diggante ñi ñàkk ak ñu am loolu yëpp si politique association bi la woon fexe ba garantir tamit lu ñuy tuddee ay capitaux yoo xam ne day def stabilité si wàllu socio économique euh, bokkoon na ci tamit ñu garantir fonds d'aide boo xam ne dañ ci mën a dimbali woy néew di doole yi lu mel ni jirim yi lu mel ni tabax ay post de santé lu mel ni ubbi ay école et cetera lépp mu nekk loo xam ne day dimbali way yayoo yi ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk si côté zakat dañu ne woon dañuy collecter ay fonds ba pare di ko distribuer waat loolu moo nekkoon politique gu association bi si wàllu zakat ba pare di defaale appui technique maanaam di dimbali nit ñi ci wàllu xel di leen former si naka lañu ñu war a euh, euh, joxe azaka ñan ñoo ko war a joxe buñ koy joxe ban anam moo gën a rafet pour wane yoon pour ñi euh, pour afi asaka gën a am efficacité loolu tamit association bi dox na ci di def ay conseil ak ay orientation yu bëri ci ñi nga xam ne dañuy joxe sax ak ñi nga xam ne dañoo ñàkk ñu jox leen ñu bañ leen a bàyyi noonu tamit ñu former leen gunge leen ba nga xam ne bu ëllëgee dañuy mën a nekk ñu am ñoom tamit la preuve mooy euh, président wax na ko sëñ Serigne Khadim Lo am na ñoo xam ne si année yu njëkk yi joxoon nañ leen azaka léegi ñoom dañuy joxe seen azaka si biir association bi donc loolu réussir la am na ay ouvriers yi nga xam ne dañ leen jëndaloon ay machine dégg nga machine u ñaw yi ak ko benn menuisier yu ñu jëndaloon seen machines ñuy liggéeyee alors léegi liggéey nañ ba recruter ay nit ñooñu tamit di liggéey ñuy joxewaale waale azaka di di ci dolli loolu ñu ngi ko def à travers xikma euh, li mu li mu yëkkati nii si cadre kon finance islamique bi daal dañuy wax ne Eh, li koy gën a firndeel sax mooy tey séminaire bi nga xam ne nii moom lañ taxawal pour soññ nit ñi gën leen a xamale ak lan mooy finance islamique pour xamal leen ne islaam am na ay jumtuwaay yoo xam ne mën na remplacer eh, système classique ba pare dina am efficacité te dina dagan tamit ci côté réalisation mën nañoo wax ne xikma si 2009 biñ ko tegee ak léegi mu commencé di liggéey def nañ ay journée de solidarité yu am doole mën nañ ko lim ba mat juróom-ñaari journée de solidarité boo ko xoolee intervalle bi day mel ni at mu ne def nañ def nañ ko sunu premier année rek bi ñuy bi ñu kont bi ñu xayma li ñu joxe ci bourse matoon na près de 9 millions loolu kon boo ko jëlee rek nga xam ne fois 7 ak yeneen chiffre d'affaires yi dina def ay loo xam ne nii si ay millions lu bëri la lan moo tax bëgguma arrêter chiffre exact comme bi la siy liggéey alors te moom mooy def comptabilité bi bëgguma wax benn chiffre montant mu juuyoo ak li nga xam ne moom moom la war a def waaye li ma mën a wax daal mooy ci en terme de chiffre d'affaires Hikma voisiné na vraiment loo xam ne ay millions yu bëri la yoo xam ne dugal na ko ci ci société bi euh, ci wàllu journée yooyu ñuy def tamit dañ koy faral di def di ci joxe azaka mais léeg-léeg li ñu war a joxe azaka bi du du ko mat parce que ñi joxe seen azaka mën naa bañ a que ñun suñu compte yi dañ ko xaaj dañoo jël benn compte bu nga xam ne compte bi fonds de solidarité rek lañ fay denc maanaam ay ndimbal yoo xam ne day di ñu teñ ciy dimbali nit mën naa am xaalis boobu du xaalisu azaka ñu am benn fonds boo xam ne fu rek lañ fa dugal am benn fonds boo xam ne zakat kese lañ fay dugal kuy joxe azaka am fonds boo xam ne fonctionnement association bi lay lay def nga xam ne du ñu jaxase xaalis yi parce que bëgguñu jël xaalis bee dugal fii wala yooyu pour loolu ay mesures de transparence la loolu xëy na tax na nit ñu bari wóolu ma si ni muy gestionné xaalis ba wóolu ko tamit ak ñëw di teg seen bët si réalisation yi ñu def ba ba bay joxe tamit seen alal si si si xikma bu ko defee si réalisation yi ñu def kon dimbali nañ ay nit ci zakat dimbali nañ leen tamit ci yeneen jumtukaay yoo xam ne du du zakat dégg nga euh, ñaareel bi jël nañ en charge médical ñu bëree bëri de si wàllu opération si wàllu hospitalisation si wàllu ordonnance si wàllu ñi nga xam ne sax dañu luye kër mbënn mi jàpp leen ñu am problème ñu jël leen en charge dégg nga ci wàllu euh, wàllu jàng wax naa ko léegi am na fukki bourse ak ñaar yoo xam ne bu ñu ko xoolee ni xikma joxe na ko koo xam ne bac juste ba licence wala master ak yeneen formation yoo xam ne da koy day dimbali ay nit ñu ñu koy ñu koy def donc loolu taxawaay bu am solo lu bu bari boo xam ne ñiy ñëw yëpp dañ koy magnifier waaye dañ ko doon partager ak yéen pour ngeen xam taxawaayu xikma si diiru juróom-ñetti at yi passé wala wala juróom-ñeenti at yemul foofu mais ñi ngi def ay protocole d'accord ak ay hôpital hmm, ay hôpitaux yoo xam ne ñi ngi ci ci place bi di def ay protocole d'accord ak ñoom pour gën a faciliter maanaam wàllum faj ci nécessité yi nga xam ne léeg-léeg sunu fond du mën a faj nit ki bu baax a baax ni mu ni mu ko war a fajee waaye à travers protocole yooyu hôpital bi dina jël en charge euh, malade bi faj ko loolu lépp ci xikma ak ci ci ci politique interne bi nga xam ne moom lay doxe maa ngi fàttaliku sëñ xaadim mi mës na indi lal boo xam ne keroog bi ñu koy joxe Dantec man demoon naa témoin témoin laa si te ba pare ci association bi ci ci laa nekk en fait wante lu am solo la te dafa symbolique lal boo xam ne évalué à presque vingt mille dollars nga jël ko jox ko hôpital Le Dantec ñu ñu ciy taxawu ay nit di leen si faj loolu si capacité financière bëri na mais si côté humanité ak si côté moralité kenn mënu koo xay kenn mënu ko xayma c'est am na ñoo xam ne ay laago yoo xam ne ay puus-puus yu ñu fi yu ñu leen fi joxoon association handicapé yi ñi nga xam ne yàlla dafa def duñu gis chaque chaque année dañ leen garantir ba leen benn benn fonds loolu depuis mille bi ñu commencé ba léegi ñu ngi koy def ci wàllu nature ceeb dëwliñ suukar loolu tamit chaque année dañ ciy joxe ay tonnes ay tonnes dégg nga ci côté programme Ramadan aussi am nañ expérience bi Touba ñaari at yu weesu yëpp indi nañ fi ceeb indi fi suukar jox ko ñi nga xam ne ay nécessité lañ. Kaolack def nañ ko fa def nañ ko dakaar si ay places yu wuute def nañ ko si prison yi nekk dakaar ah, loo xam ne lépp mi ngi jóge ci eh, xikma moo ko taxawee alors ak ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale si wàllu liggéey ak comprendre politique bi nga xam ne moom lay doxee muy du am solo si wàllu si wàllu liggéey comme sëñ Mor li ma mayoon si temps bëriwul dama gaawantu rek pour ramasser eh, carrément léegi grand projet xikma yi rek laa bëgg wax ñaar am nañ projet école franco-arabe parce que volet formation dafa am solo si ñun bëgg nañ tamit euh, famille défa défavorisées yi nga xam ne mënuñu seen bopp ñu jàppale leen ñu mën seen bopp bëgg nañu def ay ndogu savoir pour wax ak patronat bi ñu xam importance li ñuy def nu mu doon pour mën cee tàbbal seen loxo tamit loolu grosso modo ñu tënk loolu rek pour présentation de l'association di Hikma ñu ngi leen sandi leen gërëm asalaamaaleykum ya